tey dama kontaan euh, dama surprise bu baax tax man teguma woon ne man dinaa ko gagné bi ma ko waxee dama choqué woon te xalaatuma woon loolu daal may sant yàlla euh, gërëm sama parents yi sama professeur yi ak euh, sama professeur yi ak ñi ma dimbali yu ma encouragé ci concours bi. tey lan ngay ñaax sa mbokku sa mbokku xale yi nga xamante ne jàng dafa jot jànguñu wala fan ci ban tempo nga leen teg tey jii. Euh, je pense que nit yooyu peut-être xamuñu importance du changement réel bi euh, xam nañ ne science infuse nii c'est la base du développement de notre pays donc bu koy encouragé jigéen ñëpp ñu nekk ci Sénégal fii ci monde bi ñu essayer def le ay ci science yi parce que les matières yu importantes aussi bien matière littéraire yi que matière scientifique yi. Euh, xale yi nga xam ne dañoo gagné ci concours ministère nationale def koy indi depuis 2011 nga xam ne dafay euh, dafay organiser concours bu ñu tuddee concours Miss mathématique ak Miss science loolu xale yi nga xam ne dañu nekk ci série scientifique yi xam nga série scientifique yi xale yi jigéen yi yamuñ ko woon waaye depuis 2011 ministère de l' éducation nationale def ci def ay jéego di ci def ay stratégie xale yi euh, ñu mën a jàng ñu mën a dem ci série scientifique yi ñu jox leen ay jumtuwaay jox leen ay jàngalekat ak matériel boo xam ne ñoom dinañ mën a bëgg série scientifique xam nañ ne développement pays euh, ci science bi lay basé wu te mun nañ wax ne ne du góor ñi rek ñoo ko war a def jigéen ñi tamit war nañ ko def comme jigéen ñi barewuñ koon nag ministère léegi nag di def ay jéego pour que xale yi jigéen ñi gën a donc fête bi ñu def tey ci loolu la la la kii ñu am Miss Science nga xam ne xale yi def seconde S la ak euh, xale yi def quatrième muy Miss mathématique waaye xam nga daaw ak euh, coronavirus bi édition bi fetewuñ ko ndax fet amutoon dañu tëjoon sax école yi léegi nag ñun ñu ne duñu fàtte loolu mooy wax coronavirus yaa ngi fi waaye ñun tamit am nañu suñuy stratégie pour résilience que ne dinañ ko daan lii ci la bokk ndax daa 2020 xale yi defoon jongante bi ba jàll ren fete nañ leen fete waale ñi nga xam ne ñoom ñoo def 2021 may félicité nag comité d' organisation bi nga xam ne bu inspection d' académie de Dakar nga xam ne maam Koura mi nii sama ginnaaw moo leen jiit jiite ñu def fet bu rafet bi fet bu neex bi euh, di leen delloo njukkal te di leen jaajëfal te lépp ci euh, autorité gouverneur de la région de Dakar bi nga xam ne maa ngi koy sargal bu baax a baax a baax ci jàppale bi mu may jàppale di remercier euh, maire Sofiatou docteur Sofiatou Thiam ak madame le maire Soham Wardini bi nga xam ne moom du jóg ci jàppale académie de Dakar depuis man ba ma fi ñëwee ba léegi. résultat dal na suñ xel bu baax a baax parce que 2018 xale bi génnoon lauréat fii ci académie de Dakar moom moo jël niveau national euh, moom moo nekkoon premier ci niveau national donc bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jàlloon gis nga dee nañ ne ay not 20 sur 20 la amoon boobu quatrième la doon def te ren tamit bokk na kon ñun am nañu espoir que ne xale yi ñu ngi ciy dugg bu baax te bu ñu ci duggee rek bu ñu leen jàppalee dañuy dem Euh, en français, j'aimerais bien euh, remercier le gouverneur et les marionnettes. Voilà, j'avais oublié de le faire. Donc je profite de l'occasion pour remercier et magnifier la présence de monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Alassane Sall. Tout le monde sait le calendrier très chargé du gouverneur de la région de Dakar, mais il a tenu euh, à venir personnellement. Il n'a pas voulu déléguer, il a voulu personnellement venir présider cette cérémonie de remise de prix aux lauréates donc, euh, du, du, concours Miss Mathématiques et Je voudrais aussi en profiter pour remercier les marraines qui ont bien voulu accepter de nous accompagner. Je veux nommer le docteur Safir Picham, Euh, qui nous a bien accompagnés et que nous avons servi en modèle aux, filles. Et euh, Madame, euh, la, le, le maire de la ville de Dakar, Madame Soham Elvardeni, qui a accepté elle aussi d'être marraine de l'édition 2021. Ce sont des femmes que nous avons voulu offrir en modèle, en exemple aux filles. Donc, euh, je pense que la fête a été très belle sous l'autorité la, de Madame Mam Kourangom, donc qui a eu à manager le, le comité d'organisation, qui a eu à travailler pour que nous ayons cette fête euh, aussi belle. Je voudrais féliciter tout le monde. Vous félicitez vous et nous excusez parce que quand même vous étiez sous le euh, chaud soleil, mais vous n'avez pas bougé. J'aimerais vraiment magnifier votre présence parce que vous êtes des partenaires sûrs pour nous aider à développer notre politique éducative. Merci à tout le monde.